matériel bi waxna ko sank ci français muy matériel bu am solo ndax ku ne ne tay informatique le numérique dafa don lo xamne c'est incontournable ci liggéey bi ñuy def daf ñuy permettre ñu gëna a gaaw waaye tamit ñu am ay résultats yu gëna a baax te ku ne xam ne président de la république mébétam yépp moy agent de l'administration publique yi mo améliorer seeni conditions motax fan yele weesu yéen ñep bu ngeen xolé seen bulletin de salaire gis ngeen ne amna na jéego bu am solo bu mu ci def ci dynamique bobu nak ci le ministre bi inscrire pour moderniser service déconcentré yi gannaaw bam ko defee pour service centraux yi motax ñu wo leen fi tay ku ne ñu fas jébal la matériel bu am solo bo xamné amna ay ordinateur amna ay imprimante ordinateur fixe portable imprimante ay onduleur ay photocopieuse bépp xeetu matériel boo xam ne dafay gën a yombal seen liggéey loolu moo sabab euh, ndaje tey bi ndax nag euh, xam na ne yéen a ngi jànkoonteeg ay jafe-jafe même si état bi def na effort yu bare waaye moyen moom du mos a doy moo tax mu xalaat ne war na gën a dooleel leen gannaaw ba nga xam ne euh, def na ko pour niveau central waaye nag. dolel bi du yem ci matériel bi rek fat na ko wax ci français tey ci suba mang ci waxtan ak daaj surtout formation bi renforcement de capacité lolou dafa nek point bo xamné point bu ama am solo la té ren tamit danañ fexé dérouler ay programme de renforcement de capacité pour euh, gën leena dolel ci ci liggéey bi motax mu jël lu toll ci 200 millions dougal ko ci waye tamit euh deglu nañ sank sen doyen bi nga xamné mo wax ci sen tour ak mébét yi nga xamné am ngeen ko ci walu logistique lol tamit fatali na né président de la république dafa nek ci dynamique bo xamné tamit dafa bëgg rationaliser vraiment lepp lu jëm ci ñëndum auto ak niñ koy jëfëndiko ba taxna amna dogal yo xamné jël na ko moo tënk mooy tënk ñépp ba nga xamné légui léegi kenn mënu la jënd oto nu la nexé waaye tamit du ne kenn du jënd oto waxul loolu dafa ne dinañ jënd oto fiñ ñu ko soxlaa danañu ko def fi nga xam ne fa lañ ko war a def donc rationalisation la foofu tamit service yi dinañ jéem a xool évaluer l'état du parc xam naa c'est déjà fait disponible au niveau de la DAGE xool ce qui peut être fait pour améliorer waaye comme ni ma ko waxee rek état benn la te boo ñëwee ci niveau déconcentré foofu am na service yu am oto am na service yu amul oto waaye ku ci am mission tamit boo gisee gouverneur wala préfet ñoom am na pexe yoo xam ne du nga koy def ba nga xam ne ku ci bëgg a doxal sa mission di nga ko doxal te doo am ay jafe-jafe